asalaamaaleykum sama gaañu ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax fii ci réew mi sport altine le 15 juillet 2024 ñëw ci xibaar bu fekkee ne abonné goo ñoo ngi sàkku caw nga abonné partagé di vidéo bi activé cloche de notification bi pour que vidéo ñu dugal nga bokk suñu koy njëkk a ci réew mi sport gars yi aussi bu leen di fàtte di like dee leen sa vidéo bi lu ama am solo la ci seen biir xibaar ñu ci ànd ak Serigne Cheikh Al Amin Mbacké nga xam ne ci ngóoram rek fas nga ñu lakk dëkk. waaw moom ñëpp xam nañ liy mbiram kenn nattam léewtu ko. képp koo xam ne da nekk mag ba ndaw am jafe-jafe néew kattan moo xam sa awara di nooy di lax ngay gaaw a yegg wala nga nekk nit koo xam ne santirootu sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi. fas la koo xam ne ci sama maam la jógee mu doon dond billaahi wallaahi kitaabi at yoo mën a am. boo ko taqee taquk néew kàttan loolu ci Sénégal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil Sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dala wóor ci al amin Mbàkke surtout Seex Sidil Muxtaar Mbàkke radiallahu taala anhu kon na gaañ fas gàngoog dawal wuti ko ci nu mu gën a gaawee xibaar yi dañ koy commencé fële ca France wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee doomu Géorgie bi di kii di Macalester Dieng pourtant ñun ñëpp di ko dañ ci lu jëm ci wàllu donc transfert am à AS Monaco oui waroon na jógee ci Lamine Camara pour dem fekk di di Krépin Diatta transfert bi amoon na ba ñu réservé ko pour que mu mën a signé ci dimanche bi wala ci lundi bi mais retournement de situation moom de situation am na ci ki nga xam moom la ñu olympique de Lyon moom moo donc yàq li nga xam mooy transfert bi kon ki nga xam moom la ñu tuddee mi kaw Tadje annulé na transfert bi mu waroon a amal ci AS Monaco pour dem signer ci Olympique de Lyon Olympique de Lyon mi ngi waxtaan ak kii di FC Metz pour dix huit millions plus bonus donc équipe bi di Lyon bu duggee mën naa dem ba yegg ci vingt cinq millions yi nga xam ne moom la AS Monaco préparé woon mais li nga xam ne moom moo am mooy retournement de situation kii di Mikel Arteta rejeté na équipe bi nga xam ne moom la tuddee Monaco pour Olympique Euh, sénégalais pardon parce que ki nga xam ne mooy Moussa Diakhaté aussi mu ngi foofu ci Olympique de Lyon euh, Pierre Emerick Aubameyang donc di ki nga ne mooy attaquant gabonais bii nii comme ni ci dikkee woon donc ci vidéo bu bi équipe bi di donc bu buux dina am li bëgg donc actuellement Olympique de Marseille a accepté donc dalese ki nga xam ne si moom la ñu tuddee euh, Pierre Emerick Aubameyang mu dem way gaañi Olympique de Marseille d'accord na nee waaw pare naa pour ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee Alcadesia après bu ñu recruter ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee eh, Nacho Fernandez donc le Gabonais di kii di Pierre-Emerick Aubameyang dina quitter France pour mën a jubali foofu lu yàggul dara après bi nga xamante ne donc Lyon eh, équipe bi di Marseille dina waxtaan ak kii di Alcadesia ci fàttali nag moom mooy dem pour remplacer Mbaye Diagne Mbaye Diagne mi nga xamante ne comme ni ci dikk woon ci dernier vidéo bi dem na fële ca Sion di beneen club bu nekk si deuxième division donc Abamayang moom mooy ñëw pour prendre la place donc ki nga xam ne si ne moom la ñuy tuddee kii di mbay Diagne kon mm, kii di agent bi vraiment ba mu accepté yàgg na du léegi euh, léegi nañ xool dernier détail yi diggante Marseille ak Alcadesia Marseille après Marseille donc dañuy jubali fa li nga xam moom la ñuy ba Bayern na mu nekk ci Allemagne. wax ci doomu France bi nga xam ne actuellement moo ngi ci ak équipe bu Thierry Henry di Jeux olympiques donc après première offre euh, jógee fële ci ba yaa xam ne nekk jubali fële ci nga xam ne mooy si stade bi toll ci fanweeri million équipe bi di euh, stade nekk après donc pour def seconde offre maanaam ba yaa xam ne pare na pour yónnee waat beneen xaalis bu ëpp 30 millions yi nga xam ne dañ ko bañoon pour mën a recruter ki nga xam ne moom la ñu tuddee Désiré Doué nekk un attaquant excentré très prometteur moom ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Désiré Doué donc équipe bii di Paris Saint-Germain soxla na ko mais ba tey ji ñu wax ak Paris saint deful li nga xam mooy offre kon ba yaa xam ne nekk mi lii tamit bu bàyyiwul bayaan na la jëm donte nag Paris mën naa def offensif donc ci dernière minute yi ci fàttali nag le dossier de kii di Désiré Doué euh, jotewut dara ak le dossier de kii di Xavi Simons waaye nañ xam ne ba yaa xam ne ki nga xam ne moom la ñu tuddee Xavi Simons donc sans problème kenn ki c'est un excentré ki si des donc un milieu de terrain malgré que Xavi Simons capable donc de jouer mais c'est un milieu de terrain ou bien un second attaquant donc ki nga xam ne moom la ñuy Paris saint ak Bayern Munich dinañ toog ci table pour que ñu waxtaan wa wax ju mujj lu jëm ci wàllu kii di Xavi Simons bu fekkee ne day recevoir ndax Bayern Munich mais nañ xam ne daal le de Désiré Doué a empêcher le transfert ginnaaw suba moom mooy ban bis àllarba di yem ak donc le 17 euh, juillet moom mooy tombeek bis bi nga xamante si ni ci la ñëpp daal di annoncé ki nga xam ne moom mooy AC Milan dina daal di mën a siiwal la transfert de ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Alvaro Morata Alvaro Morata mi nga xamante si ni depuis le début de sa carrière ils ne connaissent que donc li nga xamante si ni moom mooy des grandes équipes euh, baax Real Madrid euh, l'Atlético de Madrid Chelsea Juve deux fois donc tey jii nii mi ngi pare pour dem ci AC Milan mi nga xam ne après Real Madrid ñoo fi ëppale ay Ligue des Champions donc ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Alvaro Morata équipe bi di AC Milan day fay close bi toll ci treize million kon ginnaaw suba normalement dina officiel. toujours en AC Milan mais cette fois-ci dafa doon dossier boo xam ne bu compliqué wul ci côté équipe bi di AC Milan oui le dossier de Morata compliqué parce que Morata 13 millions c'est bon mais kii lii di euh, Emerson Royal donc di latéral droite bi nekk ci côté boobu di Tottenham bu kii di Pape Sarr le problème mooy que Tottenham nee na moom 20 millions la bëgg équipe ne moom mooy AC Milan moom nee na moom. 15 millions la bëgg AC Milan nag gedd na actuellement waaye maanaam daal les négociations yi doxoon diggante Milan ak Tottenham dañ ko tegane ci suuf ndaxte ku ci nekk fa nga nekk bëggu faa buusi donc juróomi million moo dox seen diggante juróomi million supporters yu AC Milan yi pour que defee ngeen jox Tottenham li nga xam ne moom mooy yeneen 5 millions yi pour a jël kii di Emerson Royal parce que il est très ki nga xam ne moom la ñuy tuddee le brésilien. gaañ ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee Pepe Reina donc di gardien de but très expérimenté donc passé beaucoup de grandes équipes comme l'FC Barcelone. là-haut donc fa lañ ko formé comme Liverpool donc ki nga xamante ne moom la ñu tuddee Pepe Reina aussi euh, la nii mi ngi ci yoon donc sauf sax retournement de situation ci ay mbiram moom it suba ci li nga xam ne moom talaata gi ci la ko équipe bi di comme 1907 pare donc pour officialiser ko ci équipe boobu noonu moom ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Pepe Reina mais attention dafa ñëw pour doon gardien parce que le premier gardien sera Pau Lopez way beneen espagnol compatriotam waaye nag moo ko gën a féete xale. donc te football xale donc góolu tamit xale ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Paul Lopez équipe bi di Olympique de Marseille accepté pour bàyyi ko mu dem c'est juste que Olympique de Marseille dafa bëgg a signé li nga xamante si ni moom mooy ab remplaçant ba pare pour bàyyi ko mu dem te wax nañ leen ko keroog le gardien de but de Las Palmas Alvaro Valles donc moom la Marseille ciblé donc am na yeneen gardien de but yu Marseille di bàyyi xel comme ki nga xam ne moom mooy Samba du côté donc euh, lance bu kii di Nampalys na accord am na diggante Marseille ak kaw pour un prêt avec option d'achat 9 millions Chi Camon maintien en donc ki nga xam ne moom la ñu tuddee Camon 1907 bàyyiwul ba tey après Raphaël Varane après Alberto Moreno Pepe Reina et kii di Pablo Lopez Anthony Martial aussi beneen joueur boo xamante si ni Camon <laughs> 1907 lenn kese moo ko xaw a wutaleeg Nottingham Forest c'est que Nottingham Forest da doon génn xaalis di jënd mais kii ni gratuite lay defee.

prouvé ci club bu mag bu tànnee Arsenal même Anthony Khafre même di six match kese la fa donc tey jii nii la ko Lazio de officiellement donc équipe bi nga xam ne sur sur certaines donc mën na doon obligation d'achat donc ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee Nuno Tavares abal nañ ko. équipe bii di Lazio de Rome ak Lazio am na mi di mën na ko àbbu euh, ba noppi koy jënd en même temps bu bi jeexee. dañuy wax ci kii di Kasper euh, euh, Schmeichel donc di euh, gardien de but yu Danemark bi nga xam ne ñu ngi ko gënoon a xam ca Leicester City après donc ba contrat am jeexee ak club yu ci bëri bëri comme ñu si demee moom ci bopp ñu ngi koy xaarandi fële nga xam ne moom mooy ca Celtic Celtic Glasgow Celtic bu mu juumul mi ngi nekk championnat bu Écosse donc ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee kii di Schmeichel dina jugee donc foofu ci Danemark pour signer foofu gratuite un an avec une option donc promotion de plus boo xam ne mën na dem ba deux mille vingt six dañuy wax kii di euh, Émile donc euh, Smith-Rowe di numéro 10 bu Arsenal il est très talentueux mais malheureusement dafa xaw a fragile ay blessures daf ko xaw a moom la numéro 10. numéro 10 Arsenal koy takkoon ay caaxaan parce que ab caaxaan kat mosu takk donc équipe bi di Crystal Palace bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Fulham Marco Silva surtout Marco Silva bu Falaam bëgg na kaa jënd ñaari club yëpp ku ci nekk def na proposition Arsenal a rejeté donc toutes les deux offres neen daal doyul donte nag Mikel Arteta nee na ñu téye ko mais nag Arsenal bu gisee offre bu convaincante boo xam ne xam ne ne njëgu booy bi la ko bàyyi mu dem fi ñu toll nag ñaari club yi ki ci gën a moom mooy Falaam mais nag équipe bi ngi ci ndaxte à tout moment kii e naa jógee foofu ci Crystal Palace Marco Silva ngi ci ki nga xam ne la ñuy tuddee donc Glass neex mi ngi ci Arsenal bëggut a jaay mais bu gisee offre bu dëgër dina jaay Wilfried Nonto donc la ñu koy wax Wilfried Nonto donc di li nga xam ne moom mooy doomu italien nga xam ne dafa wàccoon deuxième division yaakaar naa ne boo leen fàttali daawee ci atum 2023 doon ak départ am jóge Leeds United pour dem Everton Everton googu gars yi bàyyi gu ko Everton après donc bi ñu recruter donc quelques aussi tamit fexe ba renouveler seen euh, joueur expérience comme kii di Ashley Young ou Idrissa Gana Gueye donc ki nga xam moom la bi i faxtanu ba tey i faxtanu dinañ ci lu yàggu la dara ki nga xamante ne moom la ñuy Greenwood gaañi eh, mi ngi dox donc di gën a jege Olympique de Marseille waaye les négociations continuent et les négociations aussi accélèrent actuellement et que accord est très proche actuellement pour diggante Olympique de Marseille ak ki nga xam ne moom la ñuy Greenwood pour Manchester United moom Manchester United a accepté donc offre euh, Olympique de Marseille bi toll ci trente millions avec donc pourcentage de cinquante pour cent pour Marseille jubóog kii di euh, Manchester United léegi nag li des mooy diggante Greenwood ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Olympique de Marseille te Greenwood gars yi mi ngi ci yoon pour accepter proposition bi mu fees na fa pour Ismaïla Sarr.

laataa match bi di jeex ci la génne sur blessure kon équipe bi nga xam ne moom mooy Argentine remporté na li nga xamante si ni moom la ñuy tude Copa America bi équipe bi nga xam ne moom mooy Argentine def na comme Espagne comme Espagne mooy lan maanaam Espagne moom mooy équipe bi gën a titré ci histoire euro et maintenant aussi ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, Argentine moom mooy nation bi gën a titré ci histoire Copa America parce que moom ak Uruguay bu luy Suarez ñoo tolloo woon ku ci nekk amoon na quinze donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Argentine am na seize donc quinze seize moo ëpp quinze donc Argentine léegi moo ëpp lu mu gagné Copa America match bu démb bi match la woon boo xam ne. émotionnellement foo yekkoon niveau bi rek donc weesu na ko ki nga xam ne moom mooy an Di Maria doon joué li nga xam ne moom mooy dernier match am et peut-être Lionel Messi gars ñi keroog dëkk nañu ne même les journaux argentins wax bii mooy doon le dernier match de Lionel Messi c'est surtout que dafa bañ a siiwal parce que dafa bëggul euh, tàggatoo gi ñu euh, réservé nga xam ne moom mooy Di Maria ñu daal di koy rafetee mais démb jooyu Lionel Messi yaakaar naa ne am na lu bëree bëri loo xam ne mas na ko see jànge peut-être que bii mooy dernière compétition euh, internationale peut dëgg la coupe du monde bu bon a la def moom ki nga xam ne moom mooy Lautaro Martinez mais il faut aussi reconnaître que ci li jëm ci wàllu Copa América bi moom mii nii mooy meilleur joueur moom ki nga xam ne moom mooy euh, kii di euh, Lautaro Martinez malgré que euh, parfois mu débuté ci banc bi parce que y a aussi Julián Alvarez mi nga xam ne moom it parfois day monter li nga xam ne moom mooy niveau bi donc depuis le début de cette compétition le début à la fin Lautaro Martinez a marqué cinq cinq bi la marqué moom ki nga xam ne moom la tudde tuddee Lautaro Martinez Lautaro Martinez après bu mu terminé meilleur buteur léegi nag day daal di duggaale ci histoire u Argentine waaye maanaam daal moom mooy troisième joueur euh, argentin bu nu gis ci benn Copa América mu dugal lu mat juróomi bi après Riquelme Riquelme ci atum 2007 après Lionel Messi ci atum 2016 et maintenant Lautaro Martinez 2024 donc ñetti joueurs lañ mës a gis ñu dëkk ci réew moomu di Argentine ci benn Copa América ñu dugal lu matt juróomi bii kon Lautaro Martinez mi ngi commencé ñu koy respecté bu baax a baax ci footballu argentin James Rodriguez la ñu koy wax donc di milieu de terrain vraiment bokk ci euh, dañoo war a profité ci moom parce que 10 yu mel ne moom bëriwul fi actuellement waaye après ñoom euh, ki nga xam ne moom mooy Ozil ak la ci jëm donc euh, gaañaa ngi dem ah 10 donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee. kii di euh, James Rodriguez après donc six participations yi nga xam def na ko marqué un but quatre hommes du match donc élu meilleur joueur donc du tournoi bien mérité donc ko dugal war bokk ko dugal benn bi def juróom benn passe jël ñeent yoon homme du match kooku mérito na jël trophée meilleur joueur donc du tournoi moom ki nga xam ne moom la ñuy tuddee James Rodriguez kon James Rodriguez peut-être avec euh, compétition bi nga xam ne réalisé na ko peut-être que am na ay chance pour mën a retourner officiellement donc li jëm ci wàllu euh, Europe way football Europe euh, war na cee mën a euh, donc participer waat bu baax a baax moom ancien joueur bu Olympiakos bu mu jungul Olympiakos euh, c' était donc son dernière équipe donc en Europe moom kii di James Rodriguez kon. Lionel Messi dafa nekk ba fin carrière am donc pour mu gagner ay trophée euh, donc international parce que tamit xawoon na difficile ci moom malgré toutes les euh, donc euh, exploits yi nga xam ne réalisé na ko en club avec Barça ou bien même avec PSG mais xawoon na am donc ay jafe-jafe pour gagner ay trophée ci équipe nationale parce que ñu ne la Lionel Messi daanaka dem na ba ay côté 35 ans muy doog di gagner premier trophée en 2021 avec une salle argentine là day wane ne donc problème amoon na mais bravo aussi à Lionel Scaloni mi nga xamante si ne depuis mu teg tànkam ñeenti at donc ñeenti trophée en 2021 donc mu gagné Copa America en 2022 mu gagné li nga xam ne moom la ñuy tuddee lii di euh, euh, coupe du monde 2024 ci atum 2022 demain mu gagné finalisme et 2024 mu gagné Copa America mu doon deuxième fois yoo xamante si gagné na ko kon bu Euh, Argentine rombe kii di Uruguay ci meilleur euh, donc équipe euh, chute américain moom participe ci bu baax a baax mais gars ñi nag avec victoire Argentine ak victoire Espagne dinañ mën a am léegi Espagne Argentine waaye xam ngeen ne waa CONMEBOL di ñi nga xam ne ñoo jiite wàllu footballu Amérique bi ak waa UEFA ñi nga xam ne ñoo jiite wàllu footballu Europe bi dañoo juboo ci ay kàddu ñu turfe benn compétition boo xam ne dañ koy tudde finalisme finalisme ñi koy dajee mooy ki gagné coupe Copa America ak ki gagné lii di Euro te ki gagné Copa America mooy Messi ak Argentine ki gagné Euro moom mooy Espagne ak Lamine Yamal kon atum 2025 bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal dinañ mën a am final est ce que dina ko fekkee loolu moom dañ ci xam dara maanaam daal est ce que dina continuer di football équipe nationale. Sénégal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil Sénégalais njëriñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne. ci new kàttan képp lay du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dala wóor ci al amin Mbacke surtout Cheikh Sidil Muxtar Mbacke radiyallahu taala kon na gaañ fas gàngoog dawal wuti ko ci nu mu gën a gaawee.